Léopold Sédar Senghor xam naa ne loo ko peut-être ci politique comme man wala suñu génération xëy na peut-être Abdou Diouf wala Ousmane Tanor Dieng ak Khalifa Sall ñooñu nga gën a miin voilà mais anniversaire am tey la Léopold Sédar Senghor ci héritage am ci parti socialiste lan nga jàpp ni moo ci des ci parti boobu nga xam ni moom moo ko sosoon tey. Euh, lu ci des ci parti bi parti socialiste au passage may nuyu di jaajëfee suma tante présidente Aminata Mbengue Ndiaye. Euh, di ko jox wàccuwaayam ci biir parti bi desatu fa dara lu am nag ba am mooy œuvre humaine la woon te mu àndoon ci ak ay euh, nawleem il n'était pas le seul ñun socialisme boobu bu ñuy woowee tey social démocrate démocratie moom la ñu bëgg a euh, dundalaat moom la ñu bëgg a fësalaat moom la ñu bëgg sigilaat mooy lan mooy doomu aadama déjà góorgóorlu ba doomu aadama mën a doon citoyen parce que le président Senghor ak ñu mu àndaloon ils avaient réussi tout de même à construire euh, une nation et ils avaient réussi à asseoir un état mhm. te wax dëgg yàlla Sénégal su demee tey ba tey ñu koy tudd mu doon référence daanaka dëkk bi musul am coup d'état Sénégal balaa ñu doon tuddu ay waxu pétrole ay waxu gaz ay waxu zircon dañ doon tudd se ressources humaines mooy euh, euh, citoyens sénégalais yi ci mhm. seen xam ci seen euh, yar ci seen mën man ci seen teranga ak ñoom seen mhm. donc góorgóorlu tamit te j'ai j'ai j'ai plaisir à le à, écouter Khalifa Sall parce que big mhm. maa ngi woon ak Khalifa Sall ci benn audience bu ñu waa Union européenne baaxee woon bëggoon déglu Khalifa Sall en tant que potentiel candidat à l'élection présidentielle Khalifa ne leen fu fu président tegoon tànkam président Senghor fu mu tegoon tànkam fu président Abdou Diouf tegoon tànkam fa la ñu bëgg a tagaat suñu tànk mooy lan mooy góorgóorlu ba suñu yàlla may ndam déjà ci cent premiers jours yi ñu wone la direction direction bi ñetti point la bu ci njëkk mooy doomu aadama bu ci tegu mooy suuf bu ci teguwaat mooy ndox doomu aadama mooy l'humain du déjà ba nit ki mën a dund parce que tey. cherté de la vie ban parti socialiste nga may wax. est-ce que non li ma bëgg a mooy ban parti socialiste nga may wax mooy parti socialiste bi nga xam ne yéen bokkatoo leen saa à dire ban parti socialiste ngeen bëgg a incarner. da nga a ma répéter la sa question yow. non non non waxuma la non li ma bëgg a xam. mooy ban parti parce que xam nga mën a am ma. mais Bart may ma daaneel. a nga may wax. Papa Ngagne da ma njëkk a laaj héritage u Senghor. lan moo ah. ci des ci parti socialiste. ok la su nekkee parti socialiste bu nga xam bu ma xam dara desatu fa ñun nag nous sommes des héritiers du président Senghor te tey biir parti socialiste amul kenn ku fay gën a incarner héritage bu président Léopold Sédar Senghor que le président Khalifa Sall amut du Aminata Mbengue Ndiaye du kenn ku nekk parti socialiste ku ci am tour ak ku ci amul tur te maa ngi jégalu nag gaañi wante loolu mooy dëgg bu ci des nag ñun ñu nga xam ne ni tey lu ñu gëm mooy l'œuvre de Senghor. lu ñu gëm mooy héritage. est-ce que mën naa daaneel s'il vous plaît papa. allez-y allez-y je vous lu ñu gëm tey. mooy fu Senghor tegoon tànkam. mais nga daaneel nag s'il te plaît. non mais nga may ma nag ma wax. parce que tamit loolu mooy wax ci. parce que je l'invité au passage. donc wax ci mooy fu Senghor tegoon tànkam loolu la président Khalifa Sall wax waa Union européenne foofu la ñu fas teg suñu tànk mooy ci doomu aadama góorgóorlu déjà pour que la cherté de la vie. ñu mën ko jël mu nekk un vieux souvenir te joxe naa fi souvent ay exemple da di jël tey lu mel ni Mali tey à l'heure où on parle litre bu ñuy bu ñuy jël fii Sénégal di ko yóbbu Mali différence bi entre lu ñuy jaay Bamako ak Dakar mi ngi toll ci presque cent cinquante farine soo laalee gaz soo laalee may leen ma daaneel Papa Ngagne vous allez me laisser parler franchement moi je vous respecte ah, vous savez j'aimerais qu'on apprenne à se respecter parce je ne suis pas là pour parler je suis là pour parler aux Sénégalais vous vous êtes là pour poser des questions Dakar ici c'est carnaval te dama la respecté te xam nga ko kon nag dama ne suñu weesoo doomu aadama ak cherté de la vie mooy la terre yow tey parti socialiste mënul te tey tabax lu mel ni des fleurons de l'industrie comme Sonacos comme ICS le régime libéral et les libéraux yàq ko yàqet tey ana Sonacos ba chinois yi di spéculer suñu kaw gerte tey ana ICS yow da nga foog ne ni la yoon la waa ICS jël Euh, waa euh, euh, ingéen jël ICS jënd ko au franc symbolique di ci liggéey engrais di ko yóbbu seen dëkk di tabax seen agriculture wëlbatikuwaat di ñu jaay ñun ñuy engrais mooy lu tax ma ne loolu la terre la terre góorlu ba suuf si nit ñi mën ko jëriñoo il n'est pas question tey que tey ay industriel ñooy ñëw dans le cadre de l'agro-industrie di di aakimoo suuf si góor góorgóorlu ba yow ak man ñu mën a am ay kër SICAP mën a am ay kër HLM euh, faire en sorte que ces programmes reviennent des programmes sociaux te fu may daanale mooy l'eau ndox tey immigration clandestine bi du tax kenn du ci wax licence de pêche yàgg na fi am wante immigration bi ak mbëkk gaal bi ni mu demee nii mosu fi am kon nag comme da nga ma laaj ne ma bu ma wax ci waxu programme bi du ma ci sori mais nag ma bëggoon leeral loolu moo tax ma ne la l'héritage du président Senghor Khalifa Ababacar Sall l'incarne et Khalifa Ababacar Sall on espère que incha allah président du Sénégal il pourra faire en sorte que héritage boobu ñu mën ko indiwaat Sénégal pour l'intérêt exclusif des populations sénégalaises. d'accord alors léegi nag mën nga ma tontu ban parti socialiste ngay.